ci kërug salaatu ala nabi yow ngi am xol bu sedd guy ak xel mu dal ak njort rafet lépp ñu koy boole ci suñ jëmm ji ci gëm nañ ne li nekk ci ñun itam ci xol yi sedd nekk na ci yéen ci wàllu soxna yi ñoo ngi ciy jiital soxna Anta Amar mi nga xamee mooy ndeyi daayira bi jataay bi nag li ko waral mooy daayira Muxaddamatul Kubra fii silaati alal busra bii nga xamante ne bi ñu ko sosee léegi mi ngi toll ci juróom-ñaari at moom liggéey yu bare bare yoo jot na ko liggéey loolu leen bëgg waxtaane tey ànd ko waa Waar wi TV ñu fas yéene koo yaatal ci jamono ànd koog si Cheikh Touré mi nga xam ne moo yore wàllu laaj yi nga xamante ne fësee nañu koo laaj li jëm ci daayira bi ñu war ko ko leeral kem suñ kala kem kalaay kattan kon sëñ Bassirou Cheikh Touré ñoo ngi lay siyaare di la dalal jàmm bisimilah aoudu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu ala sayyidina wa mawlana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa xayra xadimihi wa sallama tasliman wasal yaa muhsi salaatan taxlu kulla salaatin bi salaamin yaxlu jërëjëf sëriñ Abo Ndiaye mu matal kubra ak mboolem ñi nga xam ne ñoo teew ci jotaay bi yëpp ñoo ngi siyaar baax sëriñ Seexuna Ka mi nga xam ne mi ngi door yegg si léegi ni ko suñu wayjur waxee Baye Abo euh, ñu am yéene leeral téere bi di muqaddamatul kubra fi sirata alal bushra ak mbooloo mi nga xam ne jóg nañ ngir liggéeyal ci sëñ Tuubaa ci salaatu ala nabi jaare ko ci jumtuwaayu xarale yi ànd kook waa waar wi tiwi buñ ci nuyoo sëriñ Bachirou Sylla ak jëwriñ ji ñu àndal dana mën a yóbbaale mboolem personnel bi nga xam ne ñu ngi ci site internet boobu kon ñu ñëw tey jii ngir am ay laaj yu ñu seq ak sëñ Abo ci liggéey bi nga xam ne mi ngi koy def ci salaatu ala kon suñu boo xam naa fi ñuy tàmbalee laaj bi <clears throat> dañ koy jëmale ci lim bi nga xam ne day mel ni ngan gi noppale ci jullit ñëpp rawatina sax mooy murit yi muy milliard bi nga xam ne mel na ni yëkkati woon nga ko ngir bëgg ñu jàng ko def ko àddee Serigne Touba. ginnaaw bi nga ko saytoo ba noppit nga jébbal ko Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifatul am di taayiful muridiyya yàlla na ko fi suñu boroom yàggal te wéeral ko barkeb Cheikhul Xaddim kon laaj bu njëkk bi mooy ndax sëñ Abo njaay dafa yore daayira salaatul annabi. bisimilah. gannaaw ban delloo di ñaanal si mu taxa Mbàkke mu yàgg fi te wér suñu borom dolli ko kattan gën koo dëgëral. bi lim liggéey lépp mu matale ko tan ànd ko moom bis bii di bisub gaaw di ñaar fukki fan ak benn ci weeru ut tolloog fukki fan ak ñaar ci weeru tamxarit ci atum gàddaay di junni at ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett fii ci Jannatul Mahwa fii lañ dafay waxtaan wi sëñ Cheikh Touré dag maa laaj ne ma ndax damaa yor daayira boo xam ne léppam salaatu ala nabi la waaw damaa yor daayira boo xam ne léppam salaatu ala la fii ci Jannatul Mahwa waaw. baax na jërëjëf sëñ boo xam na laaj bi ñu topp mooy daayira boobu eh, kañ lañ ko sos ak fan la soso daayira bi maa ngi ko sose fii ci sama néeg bii ci kaw xalaat li ko waral mooy sama téere bi tudd Muqaddima Kubra fii la ala busra nga xam ne Sëriñ Tuubaa ngi ko liggéey ci géej gi mu def juróom-ñaar téeméeri salaat ak ñeent fukk muy sama téere boo xam ne dama yàgg a taqoog téere boobu bu ma masaa jàng ba egsi mooy salaatu gi ma jàng léegi kaw sar bi yamati daa am yëg-yëg la ko waral nag sos gi soxna Anta Amar mu baax mi nekk ci koñ bi fii yor fi centre boo xam ne boo xam ci cuub moo ko tax a jóg mu jàppale fi ay soxna yu bare bare bare ci musul na benn dërëm kenn ku ne daa ci am sa tranga sëkk yoo xamante ne foo dem di sant soxna si bi ma xoolee salaatu gi laa ko bindulu yaatal ko tàmbalee ko ci ñoom tàmbalee ko ci soxna soxna si daal ci gàttal bëgguma tudd ñenn yi bàyyi ñenn yi soxna Maram Faye mooy ki nga xam mooy jëwriñ ji ñu teg ko ci loxoom mu di ko yaatal di ko yaatal ñu koy li waa koñ bi di ko liggéey muy génn koñ bi ndànk-ndànk at mu jot itam ma daa woo sëñ Bassirou Touré fii ci kër gi mu defal ma màggalu salaatu ala nabi soññal ma salaatu gi bu baax a baax a baax a baax ba tey mel na ne te foofu daal ci gàttal mooy li nga xamante ne foofu la sosoo sama néeg bi laa ko sosee mu toll ci boobaak léegi juróom-ñaari at yi ko manqué juróom-ñaari at yi mat na maanaam manqué na tuuti kon foofu daal maa ngi la ko ci yëgal gun seen seex. waaw jërëjëf ginnaaw bi ñu leer leerlee euh, délai bi nga xam ne ci la ñu sos daayira bi. ak barab bi nga xam ne fi lañ ko sos. kon daayira boobu ndax am na aw tur wala daayira rek la comme daayira yëpp. daayira bi am na tur muqaddamal kubra fii salatal al busra mooy téere boobu wax naa léegi ñaata salaatoo ci nekk. maa ngi ànd ak sëñ Basiru Buso moo xamante ne sëñ Ilimaan Buso mi daa jiite ci jumaay Tuubaa ju mag ji mooy waajuram sëñ Muntaxa Mbàkke yar ko moom laa àndal ba ci mu Muntaxa ca Daaru Minam yëkkate Kubra teg ko ci loxo sëñ Muntaxa ne ko damaa yor daayira boo xamante ne Muqaddima Kubra la tudd fii salaata bësaa julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi moo ko tax a jóg dama ko damaa ñëw nag ànd ak sëñ mii ngir laaj ci ndigal ci sakku ñaan nga ñaanama ci mu mën a àgg fépp ci àddina bi itam mu ne ma jox naa la ndigal bu baax a baax a baax a baax na ngeen ci góorgóorlu taxawaay bu ngeen ci man na ko ci def kon loolu maa ngi la ko yëgal ne am naa ci ndigal ci sëñ taxa Mbàkke ci maa moom jataay bu yaatoo yaatu la laa amoon keroog ndax sëñ Basiru Buso moomu sëñ Muntaxa ko yar waaw jërëjëf Baye Baye Baye Baye boo kon mel leen di daayira bi Muxaddamatul Kubra la tudd ci jóge ci ndigal Cheikh Mouhamadoul Muntaxa kon dañuy dugg ci biir daayira bi. daayira bi kon hmm. ndax salaatu ala nabi rek léppam moom la wala am na yeneen i jëflante yoo xam ne ñu ngi koy jëflante hmm. wala yeneen liggéey yoo xam ne daayira bi mu ngi koy liggéey. daayira bi ay mbiram sax man yaatuwaay gi dafa mel ne géej rek laa ko mën a jàppe ndax ñi nga xamee ne xamante na ma ñoom ci al sëriñ yi daara yi nga xam ñëw nañ teg seen teg nañ seen tànk sama kër gi ma seet leen ñuy jaxasoo. ak ñi nga xamante ne déggante na di jax di téléphone si mosu ñëw sama kër demaguma seen daara waaye ñi ma ca xamante ne mën na téeméer ñoo xam ne teg leen seen daara ci ñi xam ne dañuy jàngal alxuraan ci sama kër gii kon mel na ne alxuraanu karim la àndal sëriñ daal téeméeri sëriñ daara daal ci gàttal ak ñaar fukk ñu ngi ci biir daayira bi di jaag di wàcc alxuraan bu baax di def ay salaatu ala nabi ci yow mi seen seex premier mi daara nga saa sa gone sëlmalee li mu salaatu yi ñuy def biñ ko dajal ci at mi mat na million kon mel na ne ànd maag daara yi waaw maa ngi téeméeri sëriñu daara yoo xamante ne ñu ngi ci biir liggéey bi ak yeneen bànqaas yoo xam ne xam naa xataayu jamono waaye kon yooyu dinaa ci dugg waaye xataayu jamono ji moo tax bisimilah. waaw jërëjëf sëñ bi ñu xamee jëmmi daayira bi salaatu ala mooy li ko tax a jóg bi ñuy tàmbali ñu ngi waxoon ne jamono yi ñu toll am na loo ci lim boo ci loo ci loo ci doon sàkku ngir julli ñëpp jàppale la ci ngir nga liggéeyal ci sëñ Tuubaa mu tëll ci milliard te milliard bu nu ko déggee ci suñu nopp day mel ne lu bari la lool loolu li ñuy laaj mooy ko a mat sëkk. bala maa ñëw ci noonu sax danaa la leeral ne saa bi saa kaw sax salaatu ala waaye lii nga ma laaj nii ni ma ko nosee mooy téeméeri nit am na ñoo am na ci kuréel yoo xamante ne mën nañ téeméer am na ci yoo xam mën na ñaari téeméer waaye bu dee ñaar téeméeri nit wala junniy nit ak lu mën a doon dañuy fab ñaar ci seen biir ñu fab juróom fukki nit yoo xamante ñaari nit ñoo ñee lépp lu juróom fukki nit ñoo liggéey ci weer yi wala ay bis gi ñoom ñoo koy saytu kenn ku ne bu weer bi dee kenn ku ne ñëw ne man de liggéey naa fukki junni kii na liggéey naa juróomi junni kii na liggéey naa ñaar téeméeri lu lu waay liggéey liggéey jox la ko lim boobee ñaari jëmm yooyu ñoo koy seytu saytu juróom fukki ni ñoo ñëwee buñ leen seytoo weer wi dee ñu xam ne am na nangam ba mu jeexee ñu am na nangam noonu lañ ko nosee ci biir mbooloo mi am nañ mbooloo yoo xam ne mën nañ ñaar téeméeri nit waaye dañ ko nosee ci daal jël ñaari nit ñu jël nangami nit loolu ñooñu liggéey weer wu jot ñu xam ne liggéey na nangam bu ko defee lim boobu ñu dajale ko saa su ma ko soxlaa su ma wootee ne jox leen ma lim rek ñu daal di jël mboolem li ñu am yëpp jox ma ko noonu laa ko nosee. jërëjëf loolu leer na mel ni laaju juróom bi sax duggaale na ci. laaj bi ni laajoon léegi muy lim bi dëgg-dëgg ñaata la. mën naa ànd ak kon limub ak limub téere mu xaatimatul kuraa bi saral busra ak kaamil yi waaw. waaw lim bi dëgg dëgg bi nga xamante ne jox naa ko sëñ taxa Mbàkke milliard la. milliards ñetti téeméer millions ak ñetti millions waaw loolu mooy lim bi nga xamante ne ni ma ko joxe si mun taxaay itam kenn ku ne ñi ko liggéey kuréel yi benn bu ne dama lam liggéey lim ba xam liggéey na ko dama fab lim boobee bind aw turam bindu santam bindu ñam àndal bind liggéey lim bam liggéey ci salaatu ala nabi loola lépp laa dajale boo noppee ma teg ko ci loxo Sëriñ Muntaxa Mbàkke yàlla na yàlla gudd fanaan ci wéral ko leeral ko ne ko liggéey bi ñi ko doon liggéey ak fan ko doon liggéeyee gannaaw ba ni siyaare Mbàkke dana ñëw doon la ko jébbal xam naa ga jataay bi ni mu demel waaye kon naa ci leeral bari waaye ci gàttal noonu daal la tëdd ci wet googu noonu laa ko nose waaw limu muxaddima téere muxaddi kubra yi moom la wax ne boo noppa ci lim boobu rek mën ko ci jàllale benn yoon ak kaamil yi bu defee ñu ñëw mën a ñëw ci juróom-ñaareelu laaj bi incha allah. waaw limu téere muxaddima kubra bi liñ ci jàng moom fanweeri junni la ak juróom-ñett junni muxaddima xidma bi jàng na ci ñaari junni boo boolee muxaddima xidma bi ak muxaddima kubra bi ñeent fukki junni la yu mat sëkk yoo xam ne jàng nañ ko ci biir liggéey bi sëriñu daar yi nag dafa mujj xat ci man ba mënu maa jël seeni lim ndax lim liggéey bi man kese maa ko doon toog fii par yor-yor su ma liggéeyee ba une heure ma wàcc. ba tax na sëriñu daara daa mujj xat xat ba kenn ko ne ñi jox ma na ñeen fukki kaamil ñi jox ma ñaar fukki ñi jox ma ñett kenn ko ne ñi jox ma téeméer waaye daal jotumaa dajale lim ba dëgg dëgg daal waaye daal noonu la demee daal ci gàttan waaw. jërëjëf Baye Abo ci leeral gi nga xam ne leeral na ko ci diggante saatu àddina bi gi ak lim milliard bi nos gi mu ko nos ba mu mën a mat benn milliard ak ñett téeméeri million ak ñetti million un million trois cent trois millions euh, ci noonu la woye ci leeral ci téere bii di mu Muxaddamatul Kubra ndax day ñaari téere yu bokkul am na téere bu ñuy wax Muxaddamatul Xidma am na téere bu sëriñ bi tuddee it muxaddimatul kubra fi shat al moom lañ tuddee daayira bi nga xam ne moo ñu tax a jóg xidma bi jàng nañ ci ñaari junni xadd muxaddimatul kubra bi jàng nañ ci juróom ñaari euh, trente huit mille fanweeri junni ak juróom-ñett soo ko boole lépp nekk ñeent fukki junni ginnaaw bi loolu lépp bu na xam naa laaj bi ci topp mooy euh, ndax da ngaa laajat leneen ndigal ngir wéy la liggéey bi wala déet. waaw bi ma demee ba sëñ Muntaxa Mbàkke yal na yàlla gudd fan wéral cëram ñu yàgg ci gannaawam bi ma ko lee liggéey ba noppi nee naa ko Mbàkke ñoo ngi sàkkuwaat la leen ndigal loo xamante ne dana bëgg ndigale àgg fépp ci àddina bi te ànd ko sëñ sëñ am sutu Mbàkke itam ndax da ciy dugal loo xam xëy na bu ne ba ci kanam loola danañ ko leeral ñu ci sàkkuwaat ndigal mu ne ma jox naa leen ndigal bu baax a baax na ngeen ci góorgóorlu ci taxawaay bi ngeen ci mën nañu ko ci def man sa jëloon naa lim waaye damaa mujj ma ñëwee fii ci kër gi am ñu ma toogal ñu waxtaanaat ñu ne leen liggéey rek xam naa ne milliard bi nu amoon ak ñetti téeméeri millions yi danu ko weesuwaat incha allah daal ma tax na néew ma bu njëkk dama noon milliard waaye bii moom dama yaakaar dañ koy weesoo ndax kuréel yi ma gis ñu nekk ci samp ci gannaaw daayira bi tàllal ñu loxo ñu fas yéene ànd liggéey liggéey bi moom wax dëgg yàlla suñu borom tabaaraka ko taala rek moo mën a xam fa muy yem waaye ñun mën ñu koo xam ñun daal li ñu war mooy góorlu rek ca nekk ci daal cay rafet njort waaw day mel laaj bi ci topp moom tontuwaale nga ko ndax euh, mooy ban lim nga laajaat kon mel ni ni wax nga ne amoon nga lim boo yéene woon waaye gis nga ne yokkute gi ak wuy si gi mbooloo mi yokku si moo tax ba jàpp nga ne mënoo koo natt fenn euh, dañuy wéyle kon laaj rek di laaj ba xam euh, daayira bi di Muxaddamatul Kubra njëkk daayira bi da nga am ci yeneen daayira wala beneen daayira boo nekkoon di ci dund hmm. wala ci daayira bi rek nga yemalewul sab liggéey man mi ngi gis nii lu moom ba def naa ba ma amee juróom-ñaari at ak léegi moom noppalu yëguma fu ma ko defee moom mosuma noppalu mosuma dallu mosuma ma xalaatu dallu ci àddina itam ca loolu bu ne ba si kanam sax am na ñu ma laajoon ne ma say jaar-jaar bëggoon nañ koo xam loolu it ñii ma def tey jii xam mën naa balaa yàgg danaa woote waat ndaje mel nii wax leen samay jaar-jaar bu ko defee ñu xam ne lu baax yombut ci itam daayira daal ba ma ci duggee dëgg dëgg dëgg nga xam ne samp naa ci daayira ñu boole ma ca ma bokk ca boobaak léegi daal fanweeri at ak juróom-ñaar moom mat na ko sëkk mu manqué moom ñetti at daal moom manqué ñeent fukki at yoo xamante ne yëngu naa ci daayira ji diggante dakaar Casamance Fuuta fu baree bare daal yëngu naa ci ci daayira daal daayira daal dund naa ci xam naa ci lu bare bare kaar-kaar incha allah ngeen dellu ñu ñaanal ndax am nañ ay yéene yu nekk ci kanam yoo xamante ne xol yi seddee ngeen ñaanal yaakaar naa ne fan bëgg a àgg ca sori ci biir daal waaye daal li ma la bëgg wax daal deux mille deux mille vingt quatre avril buñ ca àggee sama ñeent fukki dana ma ci daayira moom allah a rabbil alamin jërëjëf yàlla na yàlla gën a yàggal barki Cheikhul Khadim euh, xam naa laaj bi ci topp rek mooy dugg ci sa digganteeg sa yam satu moom sëriñ Chouaïb bu yàlla na ko yàlla yàggal mu xaddamatul kubra fi al bushra ak sëriñ am satu Mbàkke moom sëriñ bu lan nga ñu ci leeral sëriñ am Mbàkke moom sëriñ Chouaïb bu radiyallahu anhu sama digganteeg moom diggante boo xamante ne am naa ci yokkute ndax ci yokkute amutoon laaj bi du fi ñëw tey ku neex sëñ Fallou Mbacke moom sëñ Abdoulaat moom sëñ Sohay ba radiyallahu anhu moom laa àndal ñu dem ci daara ji ñuy wax mu nayu su dóor ma yët ko mu xaddam kubra bi ne man de téere bi sëñ bi bëggoon naa nga bindal ma ko sa loxo ndax li nga bind bari na gis naa nga bind lu baree bari mool ko di ko joxe ngir jëm yàlla gis naa seen saalu mbàkke fab ay xasaa it xisnu rabraar wala xadd karam naa yoo da ko tànn ci loxol boppam yónnee ko ci yow ne na ko bind ca yaatal ko ci àddina bi itam loolu tax moo tax bis ni ko tëj yi ma ànd ak sëñ Fallu Mbàkke mi ñëw ci yow bëggoon mu xadd kubra bi nga bindal ma ko sa loxo jataay boobu maag moom ak suñ fàllu mbàkke keneen ñetteelu na ku dul suñ borom mu téye téere ma wax ko fi ma ci jaar ci téere bi na ma amee téere ba ak fa ma ci jaar ba egsi foofee mu ne ma bàyyi ma téere bi ñi ko bëggee na ko amee noonee ma daal ko jox téere bi mu ñaanal ñu maag suñ fàllu ñu daal di jóg dem euh, jërëjëf jërëjëf euh, kon loolu day mel ni yóbbaale na euh, téere Muxaddamaatul Kubra day mel ni euh, li nga wax ni dina ko yóbbaale. man nga ko par gën a leer laal rek ak kan mooy maam Cheikh Anta. waaw damaa toog fii ci kër gi rek benn bis mu yónnee seen Cheikh Say mooy jëriñ sës ci rëkk ci moom mu ñëw ba sama kër dama sëñ Amsatu Mbàkke moom yónnee ci yow dama laa jël si nga fekk ca daara jëlam Minanul Baaxil Xaddiim daf laa soxla. ma dem nuyu ko rek jox ko loxo mu daal ma yëkkati mu xadd fekk lu jiitu loolu waaw mooy loolu mu daal di yëkkati mu xaddu kubra bi ne teg ko sama loxo bi moo ko joxee loxo rek dama ma daal jox mu xaddu kubra bi mu doon mbind moo xëy dama ko soxlaa woon ay couleur mu dacaa nekkoon maam Cheikh Anta Gueye mi nga xëy moo ko bind toog sama wet suñu am surtout nuyoo la ma moom ne ma xoola mbind bi ndax ni nga ko bëgg amee nga fa noonee ma xool ko xool ko ne ni ma ko bëgg woon noonee laa ko amee mu ne maa see Anta Gueye boole naa la ak Abo njaay mii ne ma lépp looy bind looti kon boole naa la ak moom na nga ko taxaw booba téere nag ab couleur ay couleur la woon ci biir couleur boobu laa ko daa nag di ko sotti su ma ci sottee copie ci lu bari la ma fa sama doole toll sama am amu bopp su ma gisee ku ko soxla lool dama koy jox ngir ngir jëm yàlla ngir jëmi sëñ bi noonu laa ci doon doxee ba yàgg bàyyi sëriñ lañ bi nga xam ne moom koy koppiyal ne ma aboo njaay ma ne ko mbàkke mu ne ma téere bii ni ma ko gisee li nga ci bëgg dëgg dëgg dëgg dëgg ay copier mënu ko ma ne ko la ko man mu ne ma mool ko moo ko man waaye copier mënu ko ca laa daal di jóge dem sëñ am satu mbàkke ne ko kat téere bi léegi dañ ko mbindoo mbindum couleur te mbindum couleur mëneesu koo mool këyit gu weex lañ koy daal di bindaate fas yéene koo mool mu ne ma këyit gi de maa koy joxe daa ji maa koy joxe maa koy tàmbali moo ko tàmbali dama si Abdou Lahat Mbàkke ca mu nawir su doon mu barkeelu ca soo ko bindee ba nga xam mu ko bindee ba nga xamante ne këyitu mujjee moo ca nag ma ko yót ma àggale ko ma daal di daal def ma daal def noonu. jërëjëf jërëjëf euh, gën naa leeraat bu baax a baax taxawaay bi nga xam ne. sëñ Amsatu Mbàkke sëriñ Soy ba am na ko ci téere bi ci diggam ak xaside yi euh, jamono yi jàll sëñ Muntaxa mi ngi wax sëñ Yuusu naan ko sëñ Amsatu moom lépp lu ñuy def ci xaside yi moom lañ koy jàppale wax nga ci sa biir wax ne fekk nga ko mun naa wit sudur ginnaaw bi fekk nga ko ci daara ji ñuy wax na Minanul Baaxil Xadim euh, leera nga ñu kan mooy maam Cheikh Anta Gueye mooy bindkat bi nga xam ne moo njëkkam diggal ci sëriñam sotum sëñ son bu bindal la xasida gii di muxaddamatul euh, xed muxaddamatul kubra fi sadal bushra kon ñaati yoon la ko bind boobu mooy ñaar ñetteelu laaj bi sa diggante ak sëriñam daanaka mooy laaj boobu rek bu njëkk bi ko njëkk bind wax naa ko couleur bi ak bu mujj bi maa Seex Anta mi ko bind nag daari ñànk ji ci Madiyaana la jàngee bi ñuy def concours alxuraan daaw jéeg juróomi téeméeri ak ñaar fukk yi doon yi doon def concours kan moo dàq bindi Sénégal moo jël première ba waaw moo ko jël mu ngi fii ci Madiana ci wetu antine bi nekk fii waaw boo ko defee ñaari yoon la ko bind mel ni wax naa la ko mooy bu couleur bi ak bii mu bindaat suñu am sutu mbàkke euh, bi mu bindaat suñu am sutu mbàkke tàmbale ko ba mu noppee ma yóbbul ko ko mu àggale ko waaw xam naa beneen laaj bi ci dugal sax te dëkkutoon ah. ci laaj yi hmm. ndax jëmi mool gi biir réew mi lañ ko moolee walla ah, mool nañ ko bitim réew. waaw ah, lu loolu bi nga xamante ne yët naa ko suñu am sëtu Mbàkke mu daal di àggale xëddu mujj wa lam ca teg ne ba baa ni nga ko bëggoon amee nga ko noonu ma ne ko ma xool ko ne ko amee naa ko noonu ma ne mu yët ko si Abdourahmane Mbàkke Daaru Musti boo demee nga ne ko maa la booleeg moom na ma ko toppal. ci biir topp boobu nag laa ci dem ku dee soxna Bint Njaay laa ci jokkool yàlla mata maraqib taalu si ñoom surtout baax a baax mu daal ne ma boo ñëwoon Dakar yi loo ci bëgg naa la ko kopp yéen ngir jëmmi sëñ bi keroog man joxantee raanu place suñu Basiru lay mii laa ko fekk mu kopp leen ma ci juróom-ñetti kopp yi ba noppi yëkkati limu xaalis teg ko sama loxo soxna su baax Mbàkke la dëkk Bintu Njaay ba juróom-ñetti kopp yooyu noppee dama ko tasaare ci borom xam-xam yi ci Touba benn la ma sëñ am surtout waxoon ne ma sëñ Abdourahmane waaye man maa ci kopp juróom-ñett tasaare ko ci borom xam-xam yi ci Touba diirub juróomi juróomi weer yoo xamante ne ku topp ba noppi ba jeexal gisatoo dara ma jàll ci borom borom xam-xam man ni ma ko toppee daal gën jaa bu ma seet fukki borom xam-xam ak juróom topp nañ téere mi ndax dama bindul sëñ Touba bëgguma ci benn araf woo xamante ne dañ koy mool. am ci benn araf boo xam ne dafa war a doon masque ak lonk ñu masque masque ak néeg wala ñu masque la neen wala tomb nekk woon fu mu ta nekk ba loolu lépp noppee nag laa ñuy waat yëtaat ko suñu am satu Mbàkke nekko ko naa ko si Abdourahmane Mbàkke topp na ko yët naa ko ñan itam topp nañ ko waaye ñeenti tur rek laa def ci biir téere bi ñeen ko topp waaye li ko topp ëpp na loolo laa ko tegaat ci loxo suñu am satu Mbàkke boo ko defee nag léegi mën ngaa wéy laaj sama diggante suñu am satu maa ngi tolloon ci ba ma ko yotaatee mool bi ba ma ko yotaate téere bi ba topp ba noppee ba top ba noppee la ne ma nag suñu asudu mbàkke ba topp bi noppee mu daal ma nag léegi nag noo bëggee téere bi ma ne ko téere bi ni ma ko bëggee damaa bëgg mu àgg fépp ci àddina bi laa bëgg mu ne ma kon de dama la waroon boole suñu xaadim mbay mi nga xam ne moom mooy ci bitim réew ma ne ko waaw nu ñu boole ndax loolu moom moo yokk liggéey bi moo daal di woo si mbay mu ñëw fekk si ma ci jaalubutu muraqib ma toog si am satu woo njaay xasaayit woo si ibrahima géey jànkat woo abdoulaat eh, Touré jànkat woo si moustapha jiit maa ngi koy sant jëmm ji baax a baax a baax a baax ndax kubra bi moo ko doon eh, defaraat daal di ko yi jubbanti di ko ordonné daal defar ko mu gën a baax daal mu defal ko ci machine am mu ne sëñ na ma dugg leen ci néeg boobu ngeen waxtaan nga waxtaan téere bi na nga ko bëggee ndax xaadim suñu xaadim mbay mi moo may moo la ci lépp lu may moo bitim réew mën ne suñu xaadim mbay gannaaw ba nuyoo wax ji du gudd wax ji moom téere bi ndox naa ci beeg si fii lépp noppi na topp bi lépp noppi na mu ngi ci masin si Moustapha jiite mii léegi dama la koy jox rek nga yóbbu ko bitim réew boo demee móol ko la nga cee dépassé ak la nga koy koy wecc ko ëllëg yow yaa ko xam loolu duma ko lijjanti man tam danaa ko móol fii ci Sénégal yaatal ko man tam bu ko defee la ma cee daj yow tam bul ko lijjanti boo juboo ci loolu rek danaa la ko jox man laajuma ci dara suy Xaadim Mbay jox ma loxo ne moo jiboo nañ ci loolu ci juboo googu na ci laa ko wax sëñ Moustapha jiite sëñ ñëpp daara bu baax sëñ Saaloo ko yar ko jàmbaare ci doy waar daal ko ne kon danaa la ko yónnee daal ko ko yónnee ca Italie mu mool ko mooy téere mooy boobu ngeen di gis noonu muy borom fegg yu dëgër yi ci am uh, këyit yu xàll yi ya am ay couleur man tam ma daan koy mool fii ci senegal mooy mool bi nga xam ne léeg-léeg ko sekk mbokk mbokkuntaali mu ko soxla ma jox ko jëm yàlla ngir ñun ñëpp ñu ànd jërëjëf waaw. baax na jërëjëf kon mel na ni laaju juróom-benn bi leeral ci mooy ginnaaw topp gi ci aju. muul gi it ñëw na ci biir kon eh, eh, li ci topp mooy li nga doon leeral hmm. boobaak léegi kon ñaata at la ci ci war li ma doon leeral bis ni ki gaaw bi ñu toog nii di fukki fan ñaar ci weeru tubaab nii boobaak léegi fukki at ak benn ñu ngi koy dugg nii ba ma tegee loxo téere bi moo ko jëlee teg loxo si Amsatu Mbàkke ne ko damaa bëgg ñu bind ko ak léegi daal fukki at ak benn yi xam naa fi mu mat na moom gannaaw loolu mooy tasaaro nga bëggoon tasaaroo téere bi ko euh, fan nga ci toll. tasaaroo kay mënuma laa fu ma ci toll fi ndax daj daj na adduna bi laa mën a wax ndax ñoom sëñ Xaadim Mbay rek fi ko tasaaree ci Europe moom ak Afrique mënut a xam toll. man mi sama jëm yi jox naa ko ñi xay teg naa ko seen loxo Abdoulaye Diouf jox naa ko mu yóbbul ma ko Madinatu Munawara bàyyi ko ca barab ba jox naa ko mu yóbbul ma ko siin jox naa ko sëñ maam maam Mbàkke moom Cheikh Penda Bouye moom Maam Mor Jaara Mbàkke moom ma ko joxal taalibeem ñu nekk fële Sapon nee na ma ajjuma ji jot taalibe yi nekk Sapon dañu daje si jumaa mag ya foofa lañ koy jànge yo dem teg naa ko ci loxo ñu bokk Brésil Argentine Gambie man sama jëmmi bopp téere bu noppee voyagé naa dem ba Mali yóbbu ko fa am ñoo xam leen ko sama jëmmi bopp yóbbu naa ko Guinée Bissau daaw daaw yóbbu naa ko fa maanaam li ma la bëgg wax daal ci gàttal moo doon wax man ñi ma teg seen loxo ba ca Gabon gee si mu alaaji mu duggee def Gabon def naa ñu bari dégg nañ ko teg naa ko ci loxoom dem na ba ko Sëñ Tuubaa bindee la ko jàng loolu la ma wax ba mu ba dëppan toogaatee nee na fa ko Sëñ Tuubaa bindee ko jàngee maanaam ci gàttal téere bi ci téere bi bu dee réewu senegal gi moom jamono ji ay kuréel lañ ci yor am na kurel yoo xam ne ñu ngi fii ci umul xuraa yoo xam ne bu seen jàng ci ñaar fukk ak am na yoo ñu ngi njaareem bu seen jàng ci fanweer am na yoo xam ne ñu ngi moom daal tasaaroo ci gàttal daal ci tënk daal am nañ ci ay kuréel kuréel yoo xam ne fi toll wax dëgg ñu ngi koy doxal bu a a baax moo tax ñu mën cee am limub fanweeri junne ak juróom-ñett waaw moo lay xamal ne kon téere bi mu ngi tasaaroo ci li li ma jot a xam bokkut ak li nëbb nag li nga xam ne xaw ma ko waaw bisimilah. jërëjëf jërëjëf xam naa laaju fukkil mooy téere bu Muqaddimatul Kubra xanaa dafa mel ni sab téere la. waaw Muqaddimatul Kubra fi silati alal busra téere bu doy waar boo xam ne suñ mag bi ma ko liggéey ci géej gi lépp di julli ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi ci la tàmbalee yem ci sant nañ ci Sëriñ Tuubaa cant goo xam ne amut fu mu tàmbalee amut fu mu yem ndax taalibu Sëriñ Tuubaa yi kenn xamut kañ la woon ak ci kenn xamut fu mu yem itam bu fekkente nag téere boobu man mii la ko suñ mag bi jagleel muy sama jagleel bopp ci mboolem taalibu Sëriñ Tuubaa yi googu cant lu ko gën a koy amut dama dut jot wax jot waaye ba ma koy jot a doog a am daal ñëw naa ba ci si Moussa xasaayit wan ko téere bi ne ko xoolal ma téere ba xam téere bi maanaam mat na wala manqué na wala daal luñ ci war a seetaat daal ndax man dama bëgg bindu si bi jamono ji nag bala mu caa sóobu rek am ci ay firnde yu wéri ci ay maskaak la ca war a doog caa sóobu booba yàgg na si Moussa xasaayit boobu taxu saygul fi mi nga daaru xuddus mu ne ko yëkkat ubbi daan ne ma téere bi mat na sëkk téere bu barkeel fekk booba sax man daanaka dama koy doog am rek ci la ma njëkk a wan ne ma wa min asbaabi bari fil bahri barakata xaasil muqaddama daan ma déggal ci wax suñ mag bi lii mu bind fii ne barkeb téer li tax ma dem ci géej gi barkeb téeri bi bokk na ci waaw li ma dem ci gi barkeb téeri bi bokk na ci loolu moom ma ko fekk fekk jàngoon naa dama ko seetant la doon moom moom ko njëkk a seetan loon ne ma mat sëkk sëkk sëkk sëkk na nga ci góorgóorlu loo ci mën na ko ci def waaw mm, jërëjëf jërëjëf. day téere boo xam ne daa nga euh, am nga ci cofeel goo xam ne. doo ci mën a sori ci waxtaan. waaw sama cofeel ci kubra kubra am ci. ci ci xam naa fukki laaj ak benn. Mm. muy yàgg suñu am sëtu Mbàkke ci téere bi mel na ni lépp mat na. waaw mm. dama am foo xam ne sax bëgg naa fa àgg ci boole ko ci ndax bi muy mool mool yombut xaalis su koy def damaa dem ci moolkat ba. Moustapha Diong waxtaan ak moom mu ne ma boo amee nangam di danaa mën a tàmbali mool bi mu ko defee boo dee wecceeku boo wecceekoo ba am nangam di ma yut yoral ma bor ñu ci dox ndànk-ndànk ma nangul ko loola. ba ma ko nangoo loola may dox léeg-léeg ma am dara rek yët ko muy mool ñuy dem ba yàgg benn bi su ma jaar si moom booba mu ngi fii ci Touba. jaar si moom waxtaan ak moom mu ne bu amoon nangam day mën a tàmbali liggéey bi. ca yoon woowee laa dal jóge suñu am satu jal ba may dem sa suñu am ko rek moo ma taxoon a jóg waaye di ko laaj dara taxumaa jóg ma ne ko kat ma ne moom moo ma laaj ne ma foo toll ci kubra bi moom la may wooye ma ne ma toll ci kubra bi ne ko kubra bi day jaar naa ci waa ji koy moon léegi nee na bu amaatoon nangam di mën a tàmbali liggéey bi am daayira bu jógee Côte d'Ivoire jox ko benn enveloppe mu ne dajjet enveloppe mu yem ci lim ba ma ko wax képp ëpp yeesut mu jox ma enveloppe ba ne ma dugal ko ci liggéey boobu. waa daayira boobu mu ne leen seen yen bay bu ngeen sant sun borom ci dellu sant seen Tuubaa ndax seen addi jii ngeen ma jox nii ma jox ko jëmm jii dama ko jox liggéey boo xamante ne da koy dugal ci liggéeyu seen boo xam ne liggéey bu seen Tuubaa gërëm liggéey bu seen Tuubaa gërëm laa leen dugal seen addi na ngeen sant yàlla bu baax a baax a baax. waaw fa ma juumee rek damaa fàtte jël seen adresse waa daayira boobu lool rek ba léegi sama xel jógu ci ñoom loolu am na ci itam sama digganteeg suñu am satu waaw. ndax ba tey suñu digganteeg suñu am satu. ndax euh, daayira bii di Sawda ànd bi ndax moom suñu am satu euh, yëg na doxin wi ak mbooleem lu ci aju. waaw daayira bi suñu am satu Mbàkke bii ma yor muy salaatu ala nabi bi doon taxawu limu salaatu ala nabi yot naa ko liggéey bi ni ma ko joxee Sëñ Muntaxa Mbàkke mu ne ma lii nga def day bég naa ci ndax danaa ko toog teewlu ko jàng ko par benn benn daat ne ma maa ngi ànd ak Cheikh Kan al Basir waroon na fee teew si sax waaye xam ne léegi sànq laa ko woon moom laa àndaloon mu daat ne ma foo ci toll ma ne ko fi ma ci toll nag day xanaa laajaat ndigal mu ne Cheikh Kan Basir Cheikh Kan moomu dafa jàng alxuraan mokkal ko jàng xam-xam dem ci sëñ Saalu Mbàkke ne ko dama bëgg fas yéene ak yow liggéey sëñ Tuubaa sëñ Saalu ndongul ko ko téeméeri taalibe ak fukk ak ñeent yi nga xam ne sëñ Saalu daf leen dajaloon ci këram daara këram googu ba ñëpp naan sëñ bi taalibe yi mu fi dajale bari na Cheikh Kanna Basir moom moo nekkoon seen jëwriñ sëñ Saaliwu woo am Amsatu Mbàkke mu ñëw mu jox ko téeméeri taalibe yooyu ëpp fukk ak ñeent Cheikh di seen jëwriñ sax la ko sëñ Saliou doon wooye ba may dem moom laa àndal bi ma ko xee daayira ba noppi mu ne ma boo fekkee dem nga sëñ Muntaxa Mbàkke ba mu joxaat la ndigal ci daayira bii ngir ngeen war a yéene salaatu ala nabi yow Cheikh maa ngi lay dénk képp ku aju ci man ci doon ndongo tarbiyu na nga wax ak moom ca soññ ko ci daayira bu leen ci kenn man itam ci ngeen sellal ko dénk naa leen lépp lu aju si man ñu sóobu ci biir daayira mo salaatu ala bi fii waaw foofu àgg naa fa lool daal àgg nañ fa maa ngi sëtu bu yàggul loolu yàggul lool waaw. kon loolu dana leeral ne suñu am sëtu kon fu liggéey bi tol mi ngi koy xam mi ngi koy yëg. mi ngi ànd ak yow liggéey bu baax a baax a baax yëmut ci ànd ak yow liggéey bi waaye jël na ak njabootam sóob leen ci bu baax a baax a baax ñu jiital suñu Cheikh kan moomu Albachir di sëriñu daara yaakaar na nekk fii ci eh, daaru Tansiir wax xam naa fukki laaj ba ñett mooy fan nga yaakaar ne daayira bi war na faa mën a àgg. bi moom ak àggam fi toll waxoon naa la ko sax def naa ca tàmbali ba tàmbali daal xam naa daal si ma néeg bi laa ko tàmbalee waaye fa mu moom xam naa ne suñu borom rek moo xam. waaye daal sama yéene daal ba àddina daayira bi dox ba àddina tukki daj àddina kap daal loolu daal la ci xam <laughs> ne mën a tontu ci loolu daal sama yéene daal yéene ci jullit yëpp itam sama borom yërëm ñu tey yërëm ñu ëllëg jéggal ñu daal loolu daal xam naa ne moom mooy mbir mi nga xamante ne waaye fa muy yemi moom tuddal naa la foo xam ne Kubra ba àgg na fa te Kubra ba fu mu àgg salaatu nabi bi àgg na fa boo ànd ak alxuraanu karim kon nag sant yàlla te góorgóorlu moo ci des waaw. waaw xam naa loolu mooy laaj ñu indi tey fii ci Sëñ Abo Ndiaye Muqaddamatul Kubra Euh, dana ñëw moom ak ci kàddum yu mujj euh, ak mu leer laale mbooloo mi mu fi doon tudd soo ba tey muy daayira Muxaddamatul Kubra ku ci bëgg a tabbi fan ngay jaar mel ni war na am ay numéro fekkee am na groupe lu mel ni ay xeeti WhatsApp ak yi caaju mu waxaal numéro yi ku ko soxla suñu noppee it am na ay mbooloo ni mu ko wax ne ko ci biir ay nit ñoo xam ne ñoom àndoon nañ liggéey bi dinañ tudd seeni tur incha allah ak téere bi du di Muqaddimatul Kubra ay jëwriñ yoo xam ne jàng nañ ci ay lim ñoom it dinañ tudd seen i waaye dañ ko jox mu indi kàddu yu mujj boole ko adresse daayira bi nga xam ne mooy Muqaddimatul Kubra ku ci bëgg a bokk fan ngay jaare suñ Cheikh bala ma àgg foofu sax suñ Amsatu Mbàkke mu yàggoon na Cheikh Cheikh Kanal Basir moomu dafa am juróom-ñaari ndongaam yi na alxuraan ñu doon tari mu ñëwoon ca maa moom ñu am jotaay bu yaatu foo xam ne dafa féex foofu ñu waxtaan fa waxtaan ma wax waxtaan ma am yu bari daal yu ma fa laaj am yu ma fa tontu. ma ne ko nag sëñ bi de xool naa ba dara toon mu xaddam kubra fa nga ca tàmbalee ba fa nga ca yem ak ni nga sóoboo ci daayira ba salaatu ala nabi nii tam man tam fas yéene ma fab def la jëriñu daayira salaatu ala nabi bi nga nekk suñ kanam ñun ñu góorgóorlu ndax jëriñ dafa mënta ñàkk. cim liggéey moo tax ma fab ko ne ko dek def naa la jëriñ ji ci danga nga ko mate mu ne ma déet loolu ëpp ma ne ko du ëpput ci yow da nga koo liggéey ndax ba nga koy liggéey boobaag day ay ati at la booba xalaatu ma ne man damaa def boobu ab téere rek boo xamante ne téere la bu ne kii ne waaye gëmma woon ne dana dem ba naan génn na réew meeg àgg na fee àgg na fële ba ciy liggéey yéen liggéey yaakaaruma ko woon te lépp li nga ma ci mas wax ci barkeel ak dund goo xam dana fa àgg ak ngërëmu Sëñ Tuubaa lépp da lépp ñu ngi koy gis jamono jii gannaaw ñoo ngi koy gis nag def naa la ngay jëriñ ji ci lu mënta ñàkk la mu ne ah gannaaw dogu nga ci de ci mënta ñàkk kon nongul naa la ko ma ne ko ma ko nongul rek ndax ak yokkut rek lay doon ci ñun ndax ban ànd ak yow ba léegi lépp yokkute la kon nag sant yàlla rek moo ci war kon ma leen leeral mbooloo mi kon daayira bi def nañ si am satu mbàkke mu doon jëwriñu liggéey bi man maa ko ko def ci ci sama jaar jaar yoo xam naa da koo yayoo bu ko yayoo waat naa ci yàlla du ko def <laughs> ndax dama ni may doxee yàgg naa ci daal ci dund naa itam ci dund naa ay yoo xamante ne xam naa li xew li xew daal xam naa ci dara daal moom kon def naa ko jëwriñ ji ci xol bu sedd nangul na ma ko ba séesee naa fas fu ma ci toll itam nee na foo ci toll naa koy xam fas yéene ma wéy la loola itam loolu daal xam naa seen seex kon maa la ko ci dollil waaw muy kàddu yu mujj yi di sant ak cant goo xamante ne sant xol ak làmmiñ goo xam ne amut fum mu tàmbalee amut fu mu yem ndax lii tuutiwu ci suñu borom yàlla mi nga xame ne moo bind lépp man de dañuy xalaat sëñ mag bii nga xamante ne bu toona moom dara du ko jar àddina ak àllaaxira yan bépp coono yëpp mu yana ko yërmaane jëpp mu yore ko ñu fas yéene topp ci yërmaaneem joojee fas yéene yërëm bindeef yëpp yéene ñëpp jàmm daal ci fas yéene góorgóorlu ci sellal daal ak bennoo di moytu àq yi riba yeeg tolof tolof yi àddina yi daal ñu moytu ko bu baax a baax a baax ndax di am lu baax di ko fab di ko sànni ci ay mbalit dara jëru ko ci àddina liggéey bi li tax mu dal xel suñ seex turam yi boole na maag ay mbusoo bi mbusoo yoo xamante ne junni si mooy waa uh, asbaab jannati bi nga xamante ne soxna Adama Ndiaye mii xam na leen ndax da caa bokk asbaabu jannati bi bala jumaay Tuuba junni nit a nga ci ci daayira boobee ñoom soobu nañ ci bi liggéey jot jot nañ ci liggéey ay millions xam nga junni nit tuutiwul te ñu ko jiite ñoom ñoom ñeenti ñëpp seede na ñoom fas yéene ciy dugg dugg nañ ci ba liggéey nañ ci millions sax waaye soobuwaat ñu nase ko ñu fas yéene bokk ci liggéey bi. ca kenn du leen ci man am naa ay mbàkke mbàkke yoo xamante ne seeni taalibi lañ woo ban ñëw ñoom ñëpp ñu dugal leen ci man jeex ci tàkk ñëpp ñu leen yaakaar dañ leen caa dugal loola yeneen waxtaan la yoo xam ne ba ëllëgee ban àgg ci su màggalu xasaayit gi incha allah yoo def na ko mën a leer waaye yooyu moom dama koo tënk ci noonu rek waaye daal daayira bi daal ak àggam ak fa mu jëm moom suñu borom rek a ko xam li ma ciy teg daal nan góorgóorlu liñ bëgg lépp amut àddina de na xam ne li ñu bëgg amut àddina àjjana rek la am waaw ci fii lañ ko mën a sàkkoo nag daal ci gàttal lool da xanaa doon naa ko ci tënk ci gàttal di sant dellu sant soxna Amar Anta Amar bu baax a baax kilifa gu mat kilifa bu ko am war ngaa góorgóorlu tam di ci jikkoom waaw incha allah loolu daal xanaa seen maa ngi ko ciy tënk incha allah waaw. waaw jërëjëf Baye boo kaddu yi leer na nañ xanaa li doon wax rek. Eh, ku bëgg a bokk si ci daayira boobu. wala nga bëgg ci ay leeral soo wootee ci 77 535 57 63 wala ci Tigo 76 672 38 30 incha allah am nañ yéene ubbil ko benn groupe whatsapp boo xam ne it ubbi ko nañ ko noppi kon hmm, ci 77 239 25 41 loolu mooy numéro yi nga xam ne am na beneen numéro 75. 525 72 55. moom it euh, ay jokkokaay la yoo xam ne ku ci euh, kii rek incha allah di jot si jaboo wala kenn ci jëwriñ yi nga xam ne ñoom lay taxawuloo liggéey bi xam naa dañuy dem rek incha allah ci mbooloo yi nga xam ne ñoo àndoon moom liggéey bi. siraatul annabi yi euh, tudd seeni tur. Hmm. ak bu ñu ci jógee dem ci muxaddamatul kubraay ndax foofu moom dañuy tudd ñi nga xamante ne salaatu ala nabi milliard boobu ñu ne wax ne liggéey nañ ko euh, danaa bëggoon àggee ci bis mu màggal ga ak jàmm kenn ko ne ñu doogal leeral ne diw mii kooku mën a taxaw ci digg baas ba xamal ne nii laa liggéeyee leeral ab liggéeyam daal ci gàttal mu def ko waaye gannaaw xat-xatu jamono la moo tax ñu bëgg a tudd tudd ñi nga xamante rek ñoo doon liggéey liggéey bi daal ñi nga xay lim yi moom duñ ko tudd wa da nga koy dëxañ ci biir rek ba àgg ca bis ba incha allah. waaw jëwriñ yooyu ni ko sëñ bi aboo waxee bokk na ci suñu sëriñ bi teew ci suñu biir muy sëriñ Cheikhouna Ka dëkk Touba Mawaahibu di jiital daara yi sopp sëriñ Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu mu ànd ko sëriñ Ousmane si dëkk Jannatu Mahwa ñu ànd ko soxna Fatimatu Bintu Sall dëkk Ndar Pikine marché bu mag ak sëriñ Chouaïb Bulo dëkk Touba Sam bu xaatul mubaaraka ànd kook sëñ Mourtada Diop imam ca Banjul Serekunda Bakaaw kër sëriñ Touba sëriñ Bàcci Fall Mbàkke Bawal ginnaaw raay di setub maam Birane Gueye rahimahullah ak sëriñ Abdou Khadim Mbàkke moom sëriñ Cheikh Mbàkke moom sëriñ Saliou radiyallahu anhu dëkk Matlabul Fawseyni yoonu Ngaabu mu ànd ko géwriñam sëriñ góor gi Sow ak sëñ lemin Kase mbuur eset ànd ak sëriñ Cheikh Diagne mbuur jàmm gën ñu ànd ko seen jëwriñ sëriñ Xaadim Ndiaye dëkk Kër Massar ñu ànd ko sëriñ Pape mbay sëriñ Pape mbay Diouf dëkk marché ak yeneen jëwriñ yu ñuy wax sëriñ seex Touré dëkk euh, sëriñ Cheikh Touré xasaayit dëkk Touba gar bu mag ak sëriñ Cissé Fall di sëriñ Daara dëkk gay dëkk fii ci guy Tukulóor ak sëriñ Mourtada Fall moom it di sëriñ daara dëkk Haaliya tablu sëriñ Fallu Mbàkke radiyallahu anhu ak sëriñ maam Thierno Ibrahima Diop di sëriñ daara moom it daara ji tudd Rawdu Rayhaan li taxlimil Quraan dëkk Boqaatul Mubaaraka quartier Madinatu Salaam ak ku ñuy wax sëriñ Babacar Bousso Guédé ak sëriñ Bachirou Bousso Kojale ak sëriñ Moustapha Bousso Aliya Aliya ak sëriñ Moustapha Bousso ak sëriñ Ousmane Bousso moom it dëkk ca Kojale ñoom ñii ñu tudd léegi moom la sëñ bi doon wax léegi ñooy njiital daayira asaabul jannati ci ndigal seen jëwriñ sëñ Babacar Bousso ak sëñ Abdoul mooy daayira bi nga xam ne ñooy seetal jumaay Touba ji amoon ci ndigal ci sëriñ Saliou Mbacké ak yeneen jëwriñ yi ñuy wax sëñ Abdoul Ahad Sall moom it di sëriñ daara nekk umul xuraa waa daayira xidmatul xaddim ñu nekk fee ci ak sëñ Abdoulahi Mbacké nekk ci dëkk bu ñuy wax ndindi guy Eh, ànd koog daayir bu ñuy wax fatul xafaar fi salaati mahil awsaar ak eh, sëriñ Cheikh Touba Ndiaye moom mi ngi dëkk Dakar ca jàmmalaay mu ànd ko sëriñ Cheikh Badiane mu nekk ba yoof mu ànd ko yeneen jëwriñ di sëriñ daara moom it di sëriñ Fallou si la di sëriñ daara di imam fii ci jumaay sëñ Mourtalaam sëñ Fallou nekk ci daaru Tansil eh, moom it bokk na ci ñi nga xam ne doon na jàpp ci liggéey bi ak beneen sëriñ daara ku ñuy wax sëriñ Fallu Booy mu dëkk ca Aliya ak sëriñ Cheikh Diagne nekk jantu Mawa daayira xidmatul xaddim ak sëriñ Abdul Karim Ndiaye moom it ma nga nekk ci daayira muxaddamatul xidma bu nekk Dakar ànd ko sëriñ Aliou Diop ñoom mu ànd ko sëriñ ja sëriñ Jëgay mi nekk ci quartier Murid ga nekk fee ci dëkk bi ñuy wax Tiwaawoon soxna bu safal ci Touba Sourayit ànd ko soxna Anta Gueye dëkk Daaru Xuduus forage su Baylaat ak sëñ Abdoulaye Dramé sëñ Abdou Dramé Poroxaan euh, nekk ka nga xam ne mooy noddu ca jumaay Poroxaan ji bokk na ci ñi nga xam ne doon nañ jàpp ci liggéey bi. ànd ak yeneen jëwriñ ñuy wax sëriñ siidi Mbay moom mi ngi dëkk fii ci euh, Touba Njenne ci pénc bi ak sëriñ Baye Góor Baye Góor a Diop di di imam jumaay Alhaji sëñ Alhaji ak sëriñ Bachir Touré xasaayit di sëtu sëriñ Abdul Ahad Mbàkke radiyallahu anhu dëkk Saam Boqaatul Mubaaraka ak sëriñ Kabir Jaxate ngi dëkk Jannatul Xuldi di sëriñ Daara ak sëriñ Ibrahima Ndooy taalibi sëriñ Abdul Ahad anhu dëkk Kër Baay Laat ak sëriñ Yuusufa Siise di sëriñ Daara mu ngi dëkk Umul Xuraa ak sëriñ Maam Balla Diouf Tuubaa Jannatul Xuldi ak soxna ami si la di bàyyi faalu sëriñ Souhaïbou Mbacké radiyallahu anhu mi ngi dëkk tableau hôpital Matlaboul ni moo ànd koog soxna Faatu Sukkay Ndaw ñu dëkk Mbacké Bawol Paalin marché Maam Rama ànd ak soxna Njaaba Seen dëkk Tëngéej Joor ga di jëwriñu sëriñ Touba ci wàllu soxna yi ak sëriñ Ali Thiam mi ngi dëkk dakaar West Foire ak sëriñ Yirim Aaw di jëwriñu daayira bi ñuy wax Kansul Muhtadin nekk ca dakaar Pikine kër sëriñ Touba ak sëriñ Moustapha Gaye di sëtub sëriñ ba Bachirou Sarr quartier Bayal ba euh, ànd koog soxna Xujja Badiane nekk ca kees quartier Bayal ba euh, nekk fee ci Thiès waaw ak sëriñ mbay Guèye xaayira xaayira nekk fii ci xaayira de moom it doon na jàpp ci liggéey bi euh, di ab ministre diggante jantu Mahwa nekk fii ci Madiana ak Madiana ak sëñ Ibrahima Marina mi ngi nekk fa ci Guinée Bissau dëkk ba ñuy wax Bakwa. ba tey ñu ànd ko sëriñ Xaadim Baas di sëriñ Daara te imaam ca Makka Baas dëkk teenu maam Cheikh ànd ak sëriñ Jili Seck sëñ Daara ñu ànd ko euh, soxnaam soxna Kumba Guèye di borom Pastef. sëriñ Jili Mbacke ca Ndaamaatu moom sëñ Abdou Lahad Mbacke moom sëñ Abdul Karim Mbacke radiyallahu taala anhu di tawab sëriñ Fallou Mbacke moom it bokk na ci euh, ñi nga xam ne jàpp nañ ci. liggéey bi mu ànd ko jëriñam sëriñ Abo Mbay nekk ca Grand Yoff Grand Yoff Jidda 2 sëriñ Mamour Diouf route de Boune yëmbal moom it nekk ca dakaar bokk na ñi nga xam ne jàpp nañ ci lim bi ñuy wax léegi. soxna mam Mari Mbacke moom sëriñ Soay bu Mbacke radiyallahu anhu di jàngalekat alxuraan dëkk Jumaay Touba kër sëriñ Fallu Mbacke mu Cheikh Amadou Murtada radiyallahu taala anhu sëriñ Ahmadou Souare Ndindi Guy ak euh, sëñ Ahmadou Mbacke imam Daaru Muxti moom sëñ Mourtada Mbacke moom sëñ Cheikh Fati Fall moom maam Cheikh na Mbacke radiyallahu taala anhu ànd na ko jëwriñam sëriñ Mourtada Faye jëwriñu daayu Ansaaru Xaddim quartier Irsa ci kees sëriñ Assane Gaye Kantar Kantar Diagne euh, moom it ànd na ci liggéey bi ànd ko mbooleem daay rek mu fatihul Bichri ñu ànd ko sëriñ Abibou Gaye Kantar Diagne moom ak sëriñ Cheikhouna Lo ànd koog jëwriñam sëñ Fallou Sey daayira fédération xidmatul nekk ca kees IRSA soxna sëriñ Cheikh Lo jëwriñam sëriñ Fallou Sey daayira fédération xidmatul xadim nekk ca kees IRSA soxna Bali Touré euh, dëkk Daaru Minam jàkkaarloo waa kër sëñ Xamsatu Jaxate yi jànnatu Mahwa ànd ak sëñ Abdou Thiam jànnatul Mahwa sëriñ Sidina Faye Touba réew Maawo ànd ak soxna Dior juuf soxna Anta Amar njiital daayira Muxaddamatul Kubra ci wàllu soxna yi mu ngi dëkk Janatul Mahwa bopp tali mi ngi ko ànd ak soxna Mariam fay ak soxna Ndey Koddu Ndooy soxna May dëkk Njaareem Kër Seex ànd ak woy juróom soxna Xadi ak soxna faatim Birane ak Serigne Rassi ñu ànd ko Serigne Rassi nekk fee ci Njaareem Serigne Siini Mbay ànd ak soxnaam soxna aminte Gueye dëkk Daaru Xudus Foras Baylaat sëriñ Demba Sey sallallahu ala muhammadin mu ngi ni teew ci jataay bi te Daaru Salaam ànd ko sëriñ Xaadim Ñang di sëriñub Daara Mbusoobe ak sëriñ Géej Njaay di sëriñ Daara Mbusoobe ak sëriñ Koso Sekk di sëriñ Daara nekk ci Mbusoobe ak sëriñ Daam Sey Pastef dëkk ca tuuba Ngiraanin soxna Faa jàngalekatu alxuraanu karim dëkke ndaam Sonatel ànd ak aji soxna Diop jàngalekatu alxuraanu karim dëkke Daaru Xudus marché Maam Jaara sëriñ Jili Mbàkke moom sëriñ Madda Mbàkke radiyallahu anhu di sëriñ daara imam ca jumaa yi sëriñ Fàllu Mbàkke jumaada dëkk Touba Daaru Xadim mi ngi ko ànd ak sëriñ bi eh, mu ànd ko sëriñ Jibi Kanji mu baax dëkk Daaru Xadim ak soxna aji juma ak soxna aji ñang dëkk daaru xudóos quartier bëgg bamba ànd wu jëm aji soxna ndaak aaj ak soxna mariama sarr nekk amérique washington ak soxna ndikku bey ak soxna faat fall soxna faat bintu fall jëwriñ si am suñu bàkki moom sëriñ Chouaïbou dëkk dakar quartier cité damel Daayira Touba Fass Daayira Touba Fass Mbaaw Cité Mandela Cité Mandela sëriñ Xaadim Ndiaye ak sëriñ Mourtada Seck sëriñ Aliou Ndiaye ak sëriñ Abdou Khoudous Diop ak sëriñ Moustapha Diatara Guèye ak sëriñ Mouhamadou Sow ak sëriñ Kalafal sëriñ Madiop Seck ak sëriñ Moustapha Bieye ak sëriñ Ibrahima Thioy ak sëriñ Alaaji Diaw ak sëriñ Lamine Cissé ak sëriñ Fallou Guèye Ndiarème kër gu mag moom sëriñ Souley Guèye di sëriñ Daara moom it ànd nag sëriñ Abo liggéey bi. nga ànd koog jëriñ ju wax sëriñ Malick Dieng di sëriñ daara ànd ko soxna Soda Faye ci njiite njiital soppe alxuraan karim ñu ànd koog soxna Fati Gaye ànd ak soxna Daba Ndiaye sëriñ Xaasim Kan Grand Dakar euh, première première robinet nekk ca parcelle unité 311 sëriñ Xaasim Kan Grand nekk ci daaru di sëriñ daara nekk daaru xaddim aliya sëriñ aboo ñang taysir umul xuraa mook soxnaam soxna bintu géey sëñ ibrahima loo xasaayit di sëriñ daara dëkk daaru xaddim aliya ak sëriñ moustapha gay sëtu sëñ basiru sarr quartier bayal kon lim bi ñuy tudd nii mooy ñi nga xam ne ñoo jàng téere muqaddimatul kubra bi fi sa busra muy soxna fat say touba madiana sëriñ falu Ndiaye jaalibatu maraaxib Ziguinchor quartier Kañoon quartier Kajoor sëriñ Cheikh Kane Al di sëriñ daara nekk daaru Tansil sëriñ Sini Mbay Foras Baylat daaru Xudus sëriñ Cheikhouna Jenn sëriñ daara Njaarim kër gu mag sëriñ Cheikh Mbacke Jigal Touba Madiana Sumpuga sëriñ Bachirou Aan Poroxaan kër sëriñ Muudu Géey sëriñ Bachirou Jaañ sëriñ daara cuuneen quartier wakaana xaqan ibrahima sëriñ abdou lahat mbàkke sëriñ yuusufa siise sëriñ daara umul sëriñ abdou lahat sàll sëriñ daara umul xuraa sëriñ abdoulahi mbàkke nekk ca ndindiguy sëriñ useynu jàllo nekk bi ñoo na tàngoor sëriñ abdoulahi sëriñ mi ngi soog a ñëw de mi ngi soog a ñëw de waaw sëñ Abdoulahi Mbacke ci dindi ko yi ànd ko Fatul Xafaar sëñ Mouhamadou Guèye ak sëriñ Ndiaye Xasaayit sëñ Mouhamad Dramé Sam sëriñ Cheikh Kan euh, sëñ Ndiaye Xasaayit Grand Mbour ànd ak sëriñ Cheikh Kan quartier Samba Lobé Cheikh Penda Bouya Mbacke radiyallahu sëriñ Mamoor Mbacke Umul Xura moom sëriñ Cheikh Penda Bouya radiyallahu anhu moom maam Mor moom sëriñ maam Mor Jaara Mbacke radiallahu taala anhu sëñ Murtala Touré alquranul karim Madiana sëñ maam Balla Diouf jannatul xuldi sëriñ Muudu Mbacke gaar bu mag moom sëñ Abdoulaye Mbacke moom sëñ Muudu Faati Xëri Mbacke euh, ñooñu mooy ñi nga xam ne ñoo jàng limu xasida gii di Muxaddamatul Kubra. jërëjëf sëñ Cheikh maa ngi ciy fàttaliku sax soxna maam Mare Mbacke sëñ Cheikh bu nga xam ne ay daare alquran la yore di jàngale xam-xam mag a mag. ñu boole ko ci kilifa yi liggéey bi itam ndax liggéey ba muy doog a tàmbali rek laa denc moom mu rafetlu ko boole ci mbooloo mu baree bari ñuy jàngal alxuraan ci ay wàllu soxna kon soxna soos itam ñu ngi koy def di ko niiw di ko siyaare di ko di feddali suñu digganteeg moom te koy sàkku ci moom itam lu mu ci gën a mën a taxawaat ci liggéey bi rek mu dellu taxaw ko ci ci xam ne kilifa li ci biir liggéey bi waaw loolu daal ñoo ngi koy fàttali bu baax a baax incha allah léegi nag li des kon daanaka di sant ñëpp. di gërëm ñépp day sàkku daal kenn ku ne rek fu mu ne muy góorgóorlu daal ni ma ko tënki woon daal liñ bëgg daal àjjana la am daal muy góorgóorlu seen am na ci yaakaar waaw buñ góorgóorloo suñ borom yu borom yërmande la euh, ci gàttal daal sëñ Modou sëñ Modou Dieng boo ci man sànni kàddu tëjal ma ko rek dana baax de waaw ab soññee bu gàtt rek balaa tiwi sa jot ñetti kàddu rek waaw sëñ Modou Dieng moom sëñ am sutu Mbàkke di magum bi moo xamante ne dafay teew ci jataay bi ñu bëggoon mu sànni ci kàddu rek ci lu gàtt rek incha allah. sëriñ bi yàggal taxawaay bi ngeen yàgg ko joxe tan ànd koog sëriñ bi boole nu nongul ndax gën a am solo ci liggéey mooy luy nongu yàlla na nu sëriñ bi nongul boo xa bu la sëriñ bi xasee nongul rek sa dara manqué tut sama góor ga damaa waxoon ne nu ma ko góorgóorlu ci am ma ne ko fas naa ko yéene de ndax moo ma tax di xëy ka a wàcc mu ne may na nga góorgóorlu ci ñàkk ma ne ko ah loolu de moom foofu laa xaw a kéemaane sant ca war ne ma dama la ne na nga góorgóorlu ci ñàkk ma ne ko ah, loolu de sant ca war mu ne ma xam nga ama ma ne ko déedéet mu ne ma xam nga ñàkk ma ne ko déedéet mu ma am mbaam jeex am sëñ Tuubaa ci gën na ca góorgóorlu te na ci fas yéene ma ne ko fas naa ko yéene mu ma bis boo ko amee borom magasin da lay da koy jaaxal ndax daf lay gis ngay tedd di ter la te du la gis nga xëy du la gis nga wàcc kon am ba am jeex am ci gën mu ne ma ñàkk gi na nga ci góorgóorlu ma ne ko foofu de moom sant ci war mu ma ñàkk ba ñàkk jeex ñàkk bàkkaar ci gën na nga ca góorgóorlu te fas ko yéene bis boo ñàkkee bàkkaar rek am nga lépp yal nañ ni sama borom boole dimbali ci barkeb sëriñ bi ñu tàmbalee ci sëñ bi yem ci sëriñ bi loolu rek am solo yal nañ ñu ko defal boole na nongul ci barkeb sëriñ bi teñ daam Abdourahman loo nee na loo gis ci jaam rek bul yem loola lu dut ak taalibe ak lu rëy rëy bis bu duggee ci biir suuf koo xam ne amutoon dara yal nañ ñu defal taaliba guñ nangu loolu rek am solo kon jërëjëf. le douze août bi ñu doon def waxtaanu salaato bi fii ci kër doon leer mbirum daayira salaato ala nabi bi dafa am ak leeral guñ ci bëgg a yokkaat ndax dafa am loo laajoon ñu waroon laaj ca laaj yi jottoon a ñëw bëgg ko mott li lu jiitu lool nag damay sant sëñ Basiiru Tew surtout sëñ Bilaat mi nga xamante ne maa ngi moom ba léegi daayira ban ko sosee ba léegi mosuñoo tàggoo ci ay xalaat ak i jëflante. ba tubaarkàlla sant nañ suñu boroom lool ci gàttal sant nañ ko gërëm ko di sant Lamp Fall làmp Ndiaye bi nga xamante ne moo tax di lépp ci man li may laaj li mu salaatu ala nabi bi ci sëñ Muntaxa Mbàkke moom mu yóbboo ci Muntaxa Mbàkke ci moom sëñ Muntaxa Mbàkke moo ko yar tërbi ko ba xëy wàcce ko mu nekkaat ci biir sëñ Muntaxa woowaat ko mu nekkaat ci biir kër sëñ tubaa gu mag gi di teeru gan yi di leen teral di leen yóbbu ci sëñ bi itam Lamp Ndiaye mooy maa ngi koy gërëm bu baax a baax a baax di gërëm si Abdoulahi Mbacke ndindigu yi ku jàmbaare ci salaatu ala nabi lool lool lool lool koy doxal muxaddam ko ci moom laa gisee dëkk boo xam ne ndindigu yi mboolem gone yu góor yaag mag ngi ñëpp ña nga jàng muxaddal kubra jigéen ñëpp itam ji dëkk dajale ñoom ñëpp mbooleem kër yëpp ñëpp ngay def ay lim ci salaatu ala nabi kon si Abdoulahi Mbacke ndindigu itam ñoo ngi koy sant bu baax di ko gërëm xëy na yeneen jamono dina gën a yaatal liggéey boobu muy liggéey ci ndindigu yi bu loolu jàllee itam ak leeral rek laay dolli fii ci liggéey bi daayirul Muqaddamatul Kubra fi Salatoul Busta daayira bi amul am ndaje mun ci daje benn yoon benn yoon buñ ci daje amut xanaa rek ñi nga xamante ne ñoo séq liggéey bi kilifa yi rek lu toll ci lim bu xaw a bëriwut lool léeg-léeg ñu daje seet ba xam nu war a gën mën a doxee rek waaye amul mbooloo mun ci woo ñu def ay ndaje amu ci amul ci biir daayiratu Muqaddamatul Kubra bi daayira bi itam amut amul dara luñ ci laaj kenn ku ne fa mu nekk rek day liggéey liggéey ba muy liggéey saa bu soxlaa lim rek seet na ñuy jote lim bi itam ma ci dellu ci leeral itam daayira bi bu njëkk bu ñu ko doog a doog a tàmbali doon nag ko def tudde léeg-léeg sax jenn jëmm joo xam ne sunu kilifa lay doon wala sunu xarit waaye léegi dina mujj ñu soppi ko ñu des ci àddina bi yëpp ci liggéeyub daayira bi ñu di ko fas yéene di ko tudde maam Mor Anta Sali Mbacke radiyallahu anhu di waajuru sëñ bu mag bi radiallahu anhu di ko dara jaale itam maam soxna jaaritulaay busa radiallahu anha loolu mooy pasteef bi nga xamante ni maanaam fi toll daayira bi loolu bokk na ci doxinam am na itam man dalee ci tuuti rek daayira bu njëkk ci uh, addi njëkk yi benn salaatu ala nabi bii ñu ngi gis mooy saay bi kawsar bi ma jàngoon daayira bi ñu ñun ñëpp moom doon na liggéey ay jamono waaye nag bi nga xamee laaj naa milliard salaatu nabi Sëriñ Muntaxa Mbakke radiyallaahu anhu ndigal ci limu milliard bi ci laa ne nag kenn ku ne léegi salaatu ala nabi gumban rek mën na koo def ndax milliard dafa bari milliard mooy té boo ko dee seet ci weññi téeméeri junni mooy fukki yoon mooy benn million defe naa ne te million boobu nga jël ko def ko jinni yoon milliard bi doog a daan doo ko mat sëkk moo tax ñu jàpp ne kenn ku ne salaatu ala nabi gum jubu rek gën ko man rek mën na ko doxal ci biir liggéey bi di ñaan suñu borom dellu ñu taxawu dellu ñu dimbale ci biir ak bitti suñ Tuubaa tam li yéene ci moom ak li yéene ci ñoom lépp suñu borom taala àggale ko ci daraja sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xaddimi sallallahu alayhi salli ala sayyidina mawlana Muhammad saabika wa sallam wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kullu ma sadda fi kal jaw nasr min yaa rabbana salli wa sallim sarmada ala safi si la ahmada bi haq wacillaahi warrahmani si l xalqi walumuuri walusmaani waaqib daa rahimi sil fadli walbaaxi wasi tarhim bi haq wacil karima si li moom réew dioritisin sahin di sallam ala si samaytu bi fadili allahuma salli ala sayidina wa sayidina muhammadin nuurillahi li si la yut fo wa sallim alayhi wa ala alihi wa sahbihi jaay nuuri anwaari li si la tut fo sallallahu ala muhammadin allahuma salli ala sayyidina al murtada wa sallim alayhi wa ala alihi sabi wacen bi jaay sa qaboru da ya mujib daa ajib dahwatna bi karami ko jodi ya allah wa bi hurmati sayyidi bi karami ko jodi ya allah wa bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam qaddim amin rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin